plaît digënté safara bu way ak ñang balo bu parcel. <laughs> No ñaari ñaari xalé yu wané lañu nu digënté ñang balo ak safara arbitre ba ngi wax ak ñom wallahi ndaysan arbitre bi soufflé na way safara way safara wane <laughs> mbokay safara ñang balo ñaari mbeur yaa ngi <laughs> safara ñang baalo ah baalo jël na ko oh na ko mu rëpp jeex na safara def na quatre appuis ndeysaan ñang baalo daan na safara da ko fàq mu rëpp def quatre appuis ndeysaan c'est beau mbokk yi lii mooy làmb bu jeexee jeex na ñaari doomu nday la woon safara de mérité woo danga nga daanu ci biir bëre ndeysaan diggante Géejawaay la woon ak Parcelles oh mbokk yi lii dafa rafet lamba ngi nii li mën a boole ci ay doomi réewam benn sport mënu ko ci Sénégal nañ leen gën a dooleel ndeysaan mbokk yi lii dafa rafet sunu autorité yi na ci bàyyi xel lii làmb rek a ko mën boole sa ay doomi réew ci benn tàkkusaan bal tàkkul jaase génnul maram mbokk yi làmb rekk a mën lii mbokk yi ñang baalo na ko làmb bàyyi xel ñang baalo xale bi na ko làmb bàyyi xel am na dayo mbër gi ba pare mën naa bëre <laughs>